الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Al Mouridiyyah am nañu mbégte di leen nuyuwaat te it di leen ziar di leen jiital si nuyoo bi ak si ziar bi rek ñu ngi koy sama faral di wax saa su ne sunu sang Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaan suñu borom ñu tuddal fanam waaye ñu defal ko ak wér ba màggal gi nga xam ne si teewee nañ ko ron di ko ànd ak moom ñu ànd ko ak moom déwén waaye it weesu ko maanaam déwén déwén ñu di ko ànd ak moom saa su nekk te at bu jot rek muy mel nii mbaam ko gën a neex euh, su ko defee kon euh, ni ñu koy baaxoo di defee ci seen euh, plateau bi nga mooy plateau spécial jëm ci wàllu ko màggal xam ngeen ñi ngi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadel ak jumaa ji sës ci mbaar mu mag mi nga xam ne mooy mbaar mi Hizbut Tarqiyyah fi nga xam ne fi la ñuy jàngee kuréel ñu ànd rek ak Serigne Ahmadou Touré al imam su ko defee mu fas yéene moom it laabirewaat rek ba tey ci waxtaan yi su solo yi nga xam ne si doon na ko ànd ak ñun premier safar ba léegi Euh, tey jii ñu ànd rek euh, ci euh, benn waxtaan bu gàtt rek boo xam ne danañu ko séq lépp rek liñ ci jublu moom mooy fàttaliku wante li nga xam ne moom mooy màggal gi ak li mu ëmb ak li ci nekk ci ay njariñ ak li ci nekk ci ay tawfiq lépp rek mu li ñu ko bu ko defee nu man koo jariñoo ndax zakir fi ne zikratan fawal mu minee la alquran wax loolu waral kon ñu ànd ak moom li nga xam ne moom mooy jotaay bi ñu bàyyi ko mu nuyoo imam asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam sëñ Modou Kébé ñu ngi Euh, euh, euh, al umma al islami bépp di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu jàppale ñu dimbale ñu ba ñu mën cee sóobu ci sóobu yi woo xam ne jëf ji dana sell ba suñu borom mën koo nangu te bu ko nangoo mu fulal ñu ko te làqal ñu ko fi yàq yéegul jërëjëf ok jërëjëf imaam imaam euh, xam naa lu ñuy tàmbalee rek euh, dootuñu laaj lan mooy màggal ndax dafa mel ne dikkal nga ci ay yooni yoon euh, ci wax ñu lan mooy màggal wax ñu it lan moo sabab xew-xew bi ci boppam yaakaar naa xam nañu ko léegi nag tey li ñu bëgg tàmbalee rek mooy jëmmi màggal gi ci boppam fi mu tàmbalee ci mu yem ndax am na ñoo xam ne dañuy wax ne bu sabar tàmbalee rek màggal ko du na am ñoo xam ne sii ci biir safar gi sax daanaka la ñu yoroon lépp dañ ko cay def ndax nee nañu dugg nañu safar am ci ñeneen ñoo xam ne dañuy wax ne tey ci guddi tey gi ci la màggal gi di tàmbale am ñoo xam ne dañ daan déedéet Cheikhul Khadim keroog ba muy tër gàttu ba muy tërlu gàttu euh, di ko lewetal daa xaar ba ca bisub jum fukk ak juróom ñettee ba nu xëyee ca yoor yoor ca la ko dawe kon màggal gi yoor yoor la ëllëg ci yoor yoor bu bëggoon rek nga dellu si waatal ni ci euh, xew-xew bi fan la tàmbalee ak fan la yor waaw jërëjëf euh, sëñ Modou Kébé Euh, muy lu am solo ndax euh, loo gis rek dafa am fu muy tàmbalee ak fu muy yam bu dee weeru koor la tàmbalee fii la ma xataa julli sax waxtu woo xam ne ci lañ tàmm dafa ko ca julli mooy fii yem fii bu dee mooy ki am lor tam daa am fu muy kon loo gis rek dafa am fu muy tàmbalee am fu muy yem ak màkk am na fu muy tàmbalee ak fu muy yem ci ay ci weer yi ak ci bis yi soo xam ne su la rawee déwéniti rek nga koy mën a def kon loolu am na solo kon ñu xam tam uh-huh. uh, jëmmi màggal màggal nag uh, moo di sant yàlla turu màggal yi moom Sëriñ Tuubaa moo ko ko tuddee màggal ci olof nag bu ñu ko waxee jox dara gëdd jox ko woma uh, jox ko ci ak ci màgg ak màggal ak ci xeet jaamu yàlla gi mel noonu loolu la la màggal di wundu màggal gii nga xam ne Seexul Xadiim moo ko sant ginaaw bu mu liggéeyee liggéeyam bu réy bi nga xam ne euh, ay at yu bari la sunu boroom fay ko ci tam pay goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax moom moo loolu moo ko bind yajoodu lil jawaadu maa laa yanfadu wa kullu maxluqin siwa yanfadu yàlla mi aji baax ji baaxe na ma loo xam ne du jeex mukk te képp ku man rek di nga jeexal ndax loolu nag xéewal yàlla nag euh, dafa laaj ak cant cant kooku muy sant ci xéewal yàlla yi nag mooy moom la tuddi ak màggal fan la tàmbalee nag su fekkente ne dañ ne màggal li ko ni ñu koy defe mooy li ci ëpp solo mooy berne waaye ànd naag jàng alxuraan ak bàkk yàlla ak kañ ko ak tagg yonent bi ci xasida yi bu fekkee loolu la tam lépp ànd na ci biir ak lépp loo xam ne dina mën yàlla boo ko boolee moo tudd màggal loolu nag la ci gën a rëy mooy berne waaye nag ginnaaw dañ ne fukki fan yi ak juróom-ñett mooy bis fekkee bis la bis moom ci lislaam dafay tàmbalee ci guddi gi bis ci lislaam day tàmbalee guddi guddi lay tàmbalee boo tax bu weeru koor feeñee li ngay njëkk def booy dem naafila ji pourtant suba ngay préparé mais da ngay dem naafila daal di yéene balaa bis balaa jant bi fenk balaa fajara jàll soo ko deful amoo koor kon da koy tàmbalee ci guddi gi ko jiitu kon dafa mel ni même bu ñu delloo ci koo xam ne delluwaay la bu wér mu di Sëriñ da ngay gis ne dañ daan jàpp ne guddi gi. Ah. tay la. tey lay commencé. Ah. kon guddi gi ci maaga gi la bokk. Ah. buñ delloo ci waxi si Abdul Ahad tam da daan wax ne dañ ñetti fan la. loolu li li tekki mooy. dañ koy gàttandu. màggal ko gunge ko. loolu dëppoo na ak sunna ndax yéen ci boole woon ganalee ñett te ginnaaw benn lañ wax. ñetti fan. kon ñu bokkal. mbooleem taalib yi mbooleem jullit yi nga xam ne sëriñ Touba nee képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la te yaakaar naa ne mbégteem jullit yëpp la bis bi bu dellu seetee nañ koy santale yàlla ci biir mu tuddee ko mag kon boog ñun ñëpp ko ñun jullit yëpp nañ xam ne guddi gi tam lu ci waaye mën a def ci bàyyi ci xel ci taatan taatan xéewal yàlla yi wàcc taatan may suñu borom yi taatan yërmandeem ji raxas xol yi teewlu bu baax ndaxte lépp innamal a'maalu binniyaat jëf yëpp dafa tegu ci yéene kon bu ñu fàtte yéene jaamu yàlla yëpp ci téere téere yëpp booy dem bu ñu la koy jàngal farata yi amul benn jaamu yàlla bu ñu lay jàngal te duñ la njëkk a wax ne la farata ji ba ci njëkk mooy yéene yéene lu ko loo ko génnee mu jeex kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax nga xam ne kon ah taatan la ndax sëriñ bi keroog bi nga xamee ne signé ne contrat bi suñu borom bi war ko teg nattu yi mu war a duuj ay épreuve yonent bi sallallahu alayhi xamal ko nekko ko nag li ma ci séq ak yow mooy dara du la bett loolu képp la la ci mën a ñëw lépp luy ñëw daal daa la xamal ne nang ngi ñëw dégere sangam la toll itam waaye nag foofu laa ci yem moom ci boppam mu xamal yeneen bi ne ko am naa ngëm geeg jom geeg ngor geeg filig waaye nag awuma moomuma ruux gi lu ruu gi attan daal jom ji attan na ko loolu mu ñu ko daan teg nag dañ daan def saa yu ji sëñ ful ko xam kon loolu métti na te waxoon na ca ndar boo demee ci gisaaw sakur fii jawaab bi abdu fii jawaab bi abdul latif da nga cee fekk mu ne foofee daj xëyru xuruji ruux lu dul ruugu génn daj naa ko nga xalaat nag loolu saa yu waxtu bi dese dañ koy fulal waaye li tax muy am kattan géeg ngëm géeg léppam di yokk ba man ko yenn tam ndax moom itam léppam da daan yokk ngëm gi day yokk ngor gi di yokk wóolu gi di yokk ba ci njaareem ci fan yu at yu mujj yi muy xaar nag mbir mi ñëw nattuy egsi foofu nag la ko boroom bi xamale nekkoon ko nag nattuy jeex na léegi pay gi moo des pay gi tam ni nattuy daan demee noonu la pay gi demee maanaam bis bu ñëw ci fukki fan ak juróom-ñett niñ fay gi ñu la fayoon ren bu déwénee ñu ful ko loolu nag dafa bari moo tax mu ne sama bo euh, bëgg digal naa képp koo xam ne sa mbégte la sa sama mbégte man Seexul sa mbégte la bu bis bi dellu seetee nga ànd ñu ñëpp santale ko suñu borom sant gi sant la suñu borom gi nag fi li ngay sant dañ koy jox Sëñ Tuubaa alxuraan day wax ne faman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sant sa bopp rek nga santal kon ku taatan ki sa ndab képp lay dem kon bisub taatan la loolu mooy màggal bisub kent la berne la te berne tam xam nga dafa bokk ci euh, jaamu yàlla yi gën ci jaamu yàlla alal yi infaax fi la berne da wala boo ko rendi ngir yàlla da caa bokk da caa bokk ci li gën wax nañ sax moo ci gën comme ni nga xam ne jaamu yàlla yaram yi julli moo ci gën jaamu yàlla alal rendee ci gën kon ñaari xaaji jaamu yàlla yooyu rek moo am jaamu yàlla ci sa yaram wala jaamu yàlla ci sa alal yéen moom moo tax alxuraan daf leen di lënkale toujours xul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin yow yonent bi waxal ne sama julli ak sama rendi ngir yàlla ak sama dund ak sama faatu lépp jox lépp yàlla yàllaa moom kon da leen a lënkale soo demee sóortu kawsar yàlla day wax ne fa salli li rabbika wanhar na nga julil sa boroom te loj te rendi parce que ñaari jaamu yàlla loolu mooy jaamu yàlla yi ngi ëpp solo kon boog loolu jàllee nag ah julli gi ne ko na nga def jàng alxuraan julli la ndax julli lépp luy fàttali ko yàlla lépp lu koy bàkk lépp lu koy kañ loola daf ki dañ koy tuddee julli ndax alxuraan day wax ne aximis salaata di zikri taxawalal julli ngir fàttaliku ma kon lépp luy fàttaliku yàlla dellu ki suñu boroom bàkk ko kañ ko delloo ko li mu moom muy buur yi maalikul mulki boroom nguur gi ki nga xam ne tàmbaliwut fenn yëmul fenn lu am moo ko amal kooka mooy subhanahu wa mi nga xam ne. waaw mooy jàll jëlaalewoo. Ah. wa assa kamaalu. d'accord jërëjëf Imaam euh, yaakaar naa la foofu mat na leer na nañu tamit wax dëgg yàlla leer yi nga xam ne si moom nga ci joxe na ci wàllu màggal ak euh, ni nga xam ne noonu la nekk ak jaamu yàlla ak li ñu ci war a def ci ay façon jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yooyu tudd nga ci ne warees na cee jàng xasida ngir euh, sant ko sunu borom ngir Serigne Touba xasida yi mu bind yëpp lu ci bëri sant suñu borom la yeneen ci des leneen la danañ ci dellusiwaat ak it delloo njukkal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, ndax lu mu am rek dafay mel ne ci rasulullah moo doon échelle bi nga xam ne ci moom la doon jaar ngir mën a am loolu euh, bëggoon na nga dellu siwaat ñu tey jii euh, ci kanam tuuti kuréelu 313 muy kuréelu Jayshun ñoo fas yéene toog ngir jàng xasida Cheikhul Khadim bi bëggoon nga dellu siwaatal ñu ci taxawaayu xasida ci cant gi ci biir cant gi ak xasida yi nga xam ne sëriñ bi da koo bind ngir sant ko suñu borom nga xam ne tey bokk na ci yi nga xam ne waras na koo mën a privilégié bu baax a baax a baax ci gi ak nan lañ ko war a dundale ci xasida waaw wax naa la sàng na la euh, xasida ndax bu bu ñu fàtte tam ci biir kañ yàlla googu bakkaal yeneen tamit sallallahu alayhi wax naa la ko ah. xasida ne doon rek la ah. xasida li ko toggale toggale mooy composé li ko toggale mooy bakk yàlla ak kañ ko muy li dox diggante jaamu yàlla ak jaam bi nga xam ne jaam bi moo ko war a defal yàlla loolu la ñuy tuddee tawxiidul uluhiyya mooy wéetal say jëf nga wéetal ci yàlla jullil ko wooral ko joxeel ko bakk ko kañ ko kon moom rek moo yeyoo jaamu waaye itam nga wéetal yàlla ci boppam ci ay jëfam xam ne moom maam da ngay wite yàlla ci jëfam xam ne moom rek mooy bind mooy tawhiidul boobu moo mën a bind moo mën a sëgal mooy dundal mooy rey lépp mooma te loolu xas yi daf ko làmboo ci biir xas yi da ci gis loo xam ne foofu rek lay jëm mooy wiital yàlla bakkal ko dégg nga xam nga boo demee ci xasida googu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na dañu toog nee na muy xalaat layta sihri la la xes dëgg tàmbalee dégg nga masa yakunu jawaabi in ataani fi turbati malakaani aka neexoon ma xam lan laay tontu bu malakal mawti yi dikkee fekk ma ci sama bàmmeel di ma laaj fi muy xalaate loolu di ci jaaxle sëriñ bi ci saasa la ndaw fekk mi ngi taw bi mu dikkee rek ci bunt bi la ndax taw bu bari bi ci bunt bi la yem rek kim kim njëkk a jot mu kaay wuy sëñ bi mu ñëw mu jox genn xasida mu ngi ko tënkee min lawhil mahfuz mi nii li man lahul wujudu wal xidam la tàmbalee lii mi ngi tukkee ci man jëm ci ki nga xam ne moo am te tàmbalewul fenn bakk ko ci xamal ko ci lim yeyoo mu ne ko nag mu dalal ko ci xelam ne ko lii mooy seen tontu te loolu moo war a nekk tontu képp ku ñuy laaj ndax nga wéetal yàlla loolu mi ngi ci beneen pàcc bi beneen pàcc bi pàcc sant yàlla yi kenn xamul nu mu toll am na yoo xam ne sax da gis na ci biir gi tey boo demee yi yi nga xam ne bokk na ci yi mu defee foofu ci Gabon bokk nañ ala edemi Ousli ah. ca biir ne ak ak ak ala edemi arjo ca biir bi nga sa ordihi bil qur'ani sukran lahu bihi ala anami fil xalbi bil gis wal fami wala bil gis wal xalbi ah. aw kama xaal ma nga dinaa ko gërëm loo man yàlla man man sa yonent bi moom man sëñ Tuubaa ci alxuraan ngir sante ko ko ci lim ma xéewaleel cantu xol lay doon nag ak cantuk làmmiñ ak cantu jëf loolu bokk na ci nga dem ci rum naa sukkoora la sibil kaafiyoon nooni maa saa yafaal min baajin wa maknooni maa ngi sàkkoo sant tey ki nga xam ne ci diggante kaaf ak muy kun ki lay def lépp lu ne bëgg lu feeñ ndax dañu wax ne walillahi xasaayinu samawati wal ard yàlla mooy borom magasin yi kaw ak suuf ak lépp moo wax moom euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na magasin suñu borom bay nal kaafoo noonu la lu mu la nekkal mu nekk foofu da ngay gis mu dugg ci biir dangay gis ne ci xasida yi nga xam ne def na ko ci géej gi bokkoon na ci tey jaalibatul maraaxib rub naa sukkat bi mu waxoon léegi ay wala xadd karam naa ay lu mel ni kii eh, yu bari yoo xam ne ci xaside yu géej gi la bokk yëpp boo làmb boo demee da ngay gis tey làmboo xaaj yëpp sant yàlla bàkk yàlla waaye tam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. parce que kon mën nañu wax ne maanaam xaside yu géej gi loolu la wuutee xaside yu jéeri ji wala est-ce que am benn différence boo xam ne tey boo jàngee rek da nga xaw a xam ne lii xaside géej gi la wala. waaw am na am koy xàmmee. loolu technique la nag loolu lu soobu ma laa yel sam xëy na loolu lu soobu ma sam ak technique la ci daaneelu xaafiye yi mooy loolu ay ay technique yu poème la niñ koy xàmmee loolu ku jàng loolu mooy mën a xam loolu mooy lu soobu ma laa yel sam ak beneen technique yu ci nekk yoo xam ne soo jàngee li ci gën a bari est-ce que da ngay ci biir mu koy tudd wala effectivement effectivement bu dee ci géej gi dana koy tudd fi dana tudd baxar dana tudd géej léegi mu tudd géej fil baxar yi léegi mu yu koy wax ak daan fi taxar taxaru mooy exil bi dana ko far tudd ak safar tukki yépp yëpp dana ci far dugg dañ ko far di ràññeele ci biir tukki géej yi waaye nag dafa am lu ma waxoon ci benn téere benn bataaxel mu ne woon képp koo xam ne euh, bëgg nga euh, euh, li nga xam ne jaar nga ko ci sama xasida yi loo ci def mu nangu de jëfandikoo yi ma def ci géej gi loolu mu bind ko waaye dafa dem ba ci yàgg nag mu ne yàlla nangul na ko la ko tàmbali assasine ba bi muy wax loolu mu ci njaareem bal sa sin waaye nag loolu da ko koy door a xamal bu njëkk lee la waxoon waaye loolu loolu nag alxuraan da koy doxee alxuraan dafa day wax dara ba ci yàgg sax mu dem loola ñu folli wax jooje tegaat jeneen appro lu ñuy wax loi approché beneen loi ah. loolu tam loolu tam dafa mel ni waxoon na ko waaye dafa mel ni dafa dem ba loolu tam mu xamal ne suñu boroom xamal na ko nag nekkoon mu nëbbixen fii daalika da koo yee ci ci ci ci bi la ko door a yee nga jotoon a way yëpp léppam nangu na ko kon xasida yi goo ci jël goo ci jël rek am nga man nga si am li nga bëgg léegi am na ko seex bi Ibrahima di ko laaj ba xam donc may jox xasida gi boo xamee gi baaxul nga xamee gi ci yées nga man ma ko amul lépp la nangu tam ñu ci xel bu baax euh, su ko defee parce que da ngay wax mujj na nag dafa dafa dafa dafa dafa xaaj liggéey bi. muy salaatu sitta bi mat ay sitta. juróom-benn weer yi mu koy tagg. juróom-benn weer yi muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu wax na ko ci ay ibaaraat ay expression yu wuute. ci waxee yu da ngay gis ñu ko wax ci biir xasida yu mel noonu euh, di wax rek euh, kon suñu borom tabaaraka wa taala nangul na ko léppam. Euh, ma wax ne nag xasida taxawaay bi mu am ci cant gi dafa am solo xamul tax. jaamu yàlla soo gisee alxuraan di wax ku sant sa bopp nga santal mooy li ci jóge ci leer ah sa xol di ko taatan loolu yow loolu lay yow rek lay jëriñ léegi nag bu dee xasida daf lay gën a dimbali ci sa ndab gën a set soo gisee muy wax ci naan euh, xasidati faaxat si yoo ko tarxiya wa kull wa kull xeyr wa si yoo ko tarbiya sama xasida yi kawe na sëriñ si tarxiya mooy su lay ki ñi lay yéege ci yàlla kon loolu da gis ne kon te fii occasion la bis bi tey bisu occasion la kon kon jàng ci lu lay yéege baax na waaye itam noonu la kawe itam sëriñu tarbiya yi tarbiya mooy ku lay defar dina ci yow ay jikko yu bon añaan rëy mën a wax lu dëgg bëgg àdduna bëgg lekk bari nelaw tayeel soxot dégg nga xeet yooyu jikko yu ban yooyu yooyu yëpp da koy ji nit da koy jëlee ci lim kon da ngay gis ne euh, xasida itam soo gisee gëdd gi ko jox kii safar ah dafa am solo ndax dafa làmboo rek julli gi ñu doon wax léegi te mooy sikkar tudd yàlla loolu rek la ak jégguloo lépp ak ci biir rek ci biir xasida yi ci biir xasida yi hmm. euh, te it léeg-léeg damay gis maanaam koo xam ne euh, day jël genn xasida rek maanaam mel ne xasida gi moom su su entre parenthèse mën naa ne maama ma ko bind hmm. maanaam bëgg gi muy bëgg xasida gi mooy tax maanaam googu lay def ak xasidaam nga xam ne yeneen yi sax boo moytul daanaka du ko laal wala bu ko dee laal it léeg-léeg da xaw a mel ne lu ko woyofaal waaye gee moom day mel ak xasidaam lay doon goo xam ne si maanaam moom lay féetewoo ndax loolu tamit maanaam noonu la loolu mooy taxawaayu taalibe bi wala dafa war a yemale xasida yëpp bu ci nekk mu di la durus waaw xam nga xasida yi kenn mënut a jàng yëpp waaw daa bëri de moom mënut a <laughs> te boo ci jël rek baax boo ci jël li bon daal nga jàpp ngay wax ne bii gën ak nangam ak nangam dëgg la am na ay yu xasit yu am solo nag yoo xam ne ay riwaayaat yu jële ci sëriñ bi yuy wane na euh, fa baax waaye ya ca des ci dara ya ca des noppi na ci teewul ci dara kon kon xamoo xamoo yooyee bu ca waxoon nu muy mel kon boo ci jël rek na nga ko ci jàpp teyit euh, euh, mbir li ci gën mooy li ci gën a sax xasida gi nga faral di jàng chaque jour muy sab dog loolu te am na solo trop waaye boole xasida yëpp jàng jàng yëpp yëpp itam yombul ndax yaakaar naa ba léegi sii ma waxe yow góoma gu ne góoma ne kenn mas na ko def ah, waaw maa boobu bëriwul kenn koo xam ne mas nga jàng xasida yëpp bëriwul ah, imaam damay gis tamit maanaam nit ñi bu ñu màggal see euh, léeg-léeg damay seetlu ne mën nga ci ñëw solo si nga xam ne am na ko ci bisu màggal gi euh, nga war a mën a ziare euh, ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ war a mën a dem dox ci ak mbokk ziare say mbokk ak waaye ci biir ziare boobu daf ci am ñoo xam ne bu ñëwee dafa mel ne ziare bi dañuy a yitteel ci njàngum xasida mi wala alxuraan bi euh, waaw ndax comme ñett yëpp baax na nit ki ndax dafa war a topp ziare bi rek wala topp mbedd yi di dox rek wala dem di buuxante ci jumaa ji suba ba ngoon ba nga xam ne fa mu dal sax boo moytu dañ koy xaar añ wala mu ne ca armée di ziare bu mbokkam yi euh, ba fàtte njàngum xasida bi ak njàngum alxuraan bi na soññee am solo. siyaar dafa am solo. siyaare baax kuy dund. am na solo. siyaare ku baax ku fi jógee am na solo. mbokk mu fi jógee ñaanal ko am na solo kon siyaar dafa am solo. Euh, ndax tam suñu diggante ak suñu way dawlu yi bokk yi loolu lañ dañee ñoom ñëw fi dem siyaar leen ci bis bi fàttaliku leen ñaanal leen lu ama ama am solo la lu ama am solo la waaye siyaar yaakaar naa kenn du ñu dëkk yaakaar naa dangay dem siyaar dëpp siyaar nag naa fi taxaw tuuti nit ñi bu ñuy siyaar nañuy siyaar siyaar sunna waaw siyaare bu tegoo ci sunna waaw ah, siyaari sunna mooy soo ñëwee nanga nga nuyu ki ngay siyaar na nga ko nuyu soo ko nuyoo ba noppi nekk ah nga ñaanal ko dégg nga soo ko nuyoo ba noppi nga ñaanal ko ah, bu dee ku mu mën doon rek soo ba seexul xadim am ko siyaaree moom. Ah. am na lu mu wax lu mu bind xëy na du ma ko mën a wax nii waaye am na lu mu bind ci ku ma bëgg ñaanal te doo ma ñaan yàlla ñii boo dikkee ci man waxal lii. ah non loolu waroon naa waroon naa xam. mais mais su dafa wax nañ ko ba taay xam nga ci bay ci ci ci jotaay te xaw ko waxee itam tey jii a xaw na gudd. Ah, kon nañ dem rek maa ngi leen di wax ku ko man nga dem jaaykati téere yi. soo demee boo leen ko laajee daañu la ko jox. bi muy dund la ko waxoon. waaye fee ñu bàyyi itam lépp luy bidaa lépp luy bidaa ci siyaar yi nañ ko bàyyi. lu mel ne lu mel ne. waaw lu mel ni tey euh, dugg ci topp ci. Eh, eh, miir yi di raay ak mel noonu. yooyu yëpp nañ ko moytu. ba mu des nag miir bu sëñ Touba laaloon lu sëñ Touba laal moom mays na koo laal. Ah, lu mu laal. lu nekk. mays na ko laal siyaare ca. waaw loolu moom eh, ay ay ay ay gis nañ ko ci saxaaba yi. Ah. Abdullah ibn Omar fekkoon na benn banque bu yonent bi daan teg ci minbar bi daan ci toog. ñu ñëw koraay ñu ne ko lu tax mu ne yonent bi da am toog loolu lañuy ñuy wooyee tabarruk la barkeelu la ah. barkeelu dafa sax dafa sax ci dafa sax ci ci ci ci ci ci alquran sax soo demee ci euh, mujj suratu baqara bi suñu borom di wax waa benn bani israil bim naa leen euh, euh, taalut mi laa leen jàppal comme buur mm. dégg nga ba ñuy sàkku ci moom buur dafa mandarga yi mu wax ne moom la leen di jox ngir ñu mën a xam ne kii tànnu yàlla xaaloom nabiyuhum inna aayata mulkihi an yaatiyakum taabuutu fiihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka aalu Muusa wa aalu Haaruun taxmiluhu l-malaaikatu inna fi la-aayaatin mu ne leen bokk na ci mandarga yi nga xam ne moom laa leen di tegal ngir ngeen mën a xam ne Taalut mi laa leen di indil comme buur dinaa leen delloo seen gaal gi d'accord ah gaal gaal comme wëlis ah. gaal goo xam ne ni fii baqiyatu mimma taraka alu Moussa ah. yàlla nee na am na ay jeexit yu ca nekk yoo xam ne waa kër Moussa moo ko moom ak njabootam ak Haaruna nee nañu kaala kaala la woon ak ku yeb ak ay mbaxanaar yu mel noonu te nee nañu loola ba ko bànni Israël daan yor di ko barkeeloo dañ daan def fuñ dëgmal bu buñ buñ ko àndee moom ci barkeeb loolu di jeexeet yooyu. ah dañuy daal di gis ne xeex buñ mës a sumb daan ko. ah biñ demee nag ba sàggan. lay ko suñu boroom génn ci say loxo. bi ñu dellu si nag mooy leen ne kon jàppaleen kii muy buur ngeen mën a ànd xeex ci ci ci yoonu yàlla. waaye nag naa leen delloo si ci gaal gi mais dangay xool aw yat wu nit moom. ak kaala ak ay dàll. mais ñan ñan ñan la ko yàlla yóbbu. taxmiluhu al malaayika ay malaayika la ko yónni loolu moo lay xamal ne jeexit yi dafa am solo tey boo demee fi da ngay gis jeexit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jeexit saxaaba yi ñu denc ko di ko barkeloo tey soo demee tey ci kër yi euh, kër yu mag yi da ngay gis jeexit Seexul Xadiim yi ñu di ko barkeloo loolu dafa am solo kon lépp lum laal su may wax ba laal ci dara mooy rombum miir rek ngay laal ak a def yëpp wala ci armeel yi ngi mel noonu booy ci armeel yi boo fa demee. ci barab bi ci barab yi toogal nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga ñuyu barab bi soo ko nuyoo ba noppi nga ñaanal ko soo ko ñaanalee ba noppi nag bu dee nit ku baax ku yàlla gërëm ku ñu seetlu ci moom xam ci moom màndargay baax sañ barab booba barabub ñaan yàlla la waaye du barabum ñaan ko moom ay soxla noonu kenn du ñaan barab soxla waaye yàlla ngay ñaan imam Malik dégg naa gaa yi di ko sax te wax ju sax la dégg na ñëpp wax ju sax la ju bi mu ñëwee ànd buur bi mu jamonoon teel bi mu ñëwee ci siyaare ba noppi buur bi ci bopp moo ne ko xam nga boo demee Màkka benn nga jublu yonent bi wan ginnaaw Kaaba wala nga jublu Kaaba wan ginnaaw yéen noonu la la ma nee ndax fi mu positionné moo tax mu ne ko man damaa jaaxle wax seen na wax imaam Malik ndax damay jublu barab bi ñaan loolu damay koy wan ginnaaw jublu màkk ñaan kaaba gi muy penku mu ne ko jublu parce que aussi la kenn du wan sa ginnaaw kenn wan kenn du wan ginnaaw sa aussi la mu wëlbatiku jublu yonent bi wan ginnaaw màkk dégg nga mais bi ñaan yàlla kon nii ñu koy defee ci yeneen barab yu baax yi itam nañu xam ne daala nekku ci loolu mays na ko def dana nekku ci ci euh, bidaa wala non non non ko sax ci non non non li bon daal mooy mooy ngay ñaan ngay fay nga tàllal ñaan yàlla mu loolu moom dafa bërëbu barkeel la d'accord bërëbu nangu ñaan la waaw voilà waaw imaam damay gis tamit maanaam ci tabaruk boobu nga doon wax léegi ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy tibb ci suufus Tuuba yóbbaale ñenn ñi dañuy tànk ci ndox mi ne bu ñu demee ne lii ndoxum Touba la loolu tamit euh, pour nga dellusiwaat ci rek. ndax lépp barke la dañuy jàpp ne suuf suuf suuf la rek wala ndox ndox la. non suuf du suuf ndox du ah, ndox. d'accord euh, suuf si nga xas tiim sax si nga tiim nii rek. am na loo ciy def ci jàng alxuraan wala dara rek yëmut ak yeneen. <laughs> kon suuf du suuf. déedéet euh, li am solo rek mooy yéene. du dëgg yéene ju dëgg. suufus Touba dafa barkeel dafa barkeel barkeel goo xam ne ndox mi barkeel d'accord rawatina ah, ma waa ayun rahma ah, waaw waaw ci lu wér ah ci lu wér asqaytana xayra miyaahin yartawi ah, saahibuha wa xayri fawsin yaxtawi loo xam ne ni soo ko naanee xayra miyaah la wax ngëm ji ndox mm-hmm. ki ko naan di nga màndi ba noppi texe ci muy fóot xol. waaw defar jikko. moom mu ndox boo nee ndox la rek déedéet waaye nag li ma waxoon sànq moo ci nekk mooy loo gis da nga ciy gisal yéene. da kon loolu dafa am solo. baax ñi am na solo wax ma ñu ci saari sànq. ndax ci bàmme ci ah, ci barab ah, ah, am na saari ñoo xam ñu ngi fi. ak siyaari sa mbokk te bul xam bul fàtte ne Touba euh, daanaka mën nga ne euh, daanaka su cinquante pour cent murid yi seen i seen i parents ñi ngi fi minimum minimum ah ñëw fi dem siyaari sa waajur ñaanal ko ñaan gi moom dafa war foo mën a nekk mhm. waaye ba ñëwee Touba dem dem fa topp moom ñaanal ko am na solo kon màggal gi dafa bari ay fase ay ay ay abaxaat ay ay ay yu bari yoo xam ne soo di kee ci bokk gi même siyaar sa mbokk muy dund gëj a gisante yooyu yëpp ay ay mbir la ci ci siyaar bi waaye loolu tam bu bu la nekkee dugal ko ci dugal ko ci sax biiru biir tabaru barkeelu gi doon wax léegi uh-huh. barkeelu gi tam dafa am solo uh-huh. biir jumaa yeeg barab yeeg barab yu baax yeeg foo xam ne tey yii tey ñu ngi ci doon gis gi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal uh-huh. fi la daan yenn mm-hmm. di fi toog di taxaw liggéey sëñ Tuubaa bi mais fii taxaw fi ci barke ci gigis gi am na solo gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ jógee Tabuk gaa ñi dañoo jaar foo xam ne dañ faa wàcc saxaaba yi fekk fa benn teen boo xam ne waa waa Samoor yi ñoom ñoo fa nekkoon seen teen la woon gaa yi wëgg ci wëgg ci nag jukki ci teen bi mm. wàcce sunguf si mooñ defar lépp bu ko yonent bi yëgee dee leen jóg leen foofu foofu bëggul yàlla dafay wàccoon daw leen daw leen ca teen bee nga xam ne fa la gëleemu saalix gi daan naane gëleem ngeen foofa fa la barke ba nekk ne leen li ngeen gën def tuur leen ko ngeen jox ko jur gi yenn yi ñu ba ñu bàyyi ko dem ci teen booba. Ah, ah, ah. xanaa ndox ndox rek. waaw wax dëgg yàlla. ah <laughs> ñu dem ci dafay leen fii gaaw leen mbal leen mbugal wàcc dafa mbugal la fa wàcc. fa damdama alayhim rabbuhum bi sanbihim. wallaay yàlla alak leen ci seen sababu seen bakkaar yi ñu def te foofu la woon. kon bépp barab bu mbugal wàcc dañ koy moytu bépp barab bu barke wàcc dañ fay taatan ba léegi. kon loolu. Mm-hmm. ay jeexit kii tegtal ci wàllu barkeelu. Mm-hmm. dafa am solo. dafa am solo lool. Euh, barkeelu ci bépp jeexit rek. Euh, dafa am solo moo gis moo tax ba dem ki nitu yàlla ki kii dund. siyaar ko sàkk ci moom ñaan. waaw dafa am solo. barkeelu ci ñaanam. dafa am solo. barkeelu ci xoolam mu xool la. am na solo. dégg nga yooyu lépp barkeelu ci yow sax sax xool yow ko. Mm. say bët xool ko baax na mu xool la baax na. yooyu yëpp am na solo ay barkeelu yoo xam ne. dina ah, jëriñ nit ñi nga tooga moom ci jataay ah, ah. ndax am na ñoo xam ne ulaayika al xawm laa yasqa jalisuhum am na ñoo xam nii kenn du toogaale ñoom ñi texee bi yooyu yëpp kon dafa ay avantage daal la yo ci biir siyaar yeeg waaw barkeelu yi jërëjëf imaam ñu ngi lay sant bu baax a baax euh, xam naa li ma lay mujjal laaj rek ndax waxtu wi jot na moo jeex na euh, euh, buñ ne woon viatique viatique ñu ko waxee mooy ab yóbbal ki xam ne mi ngi màggal si wala ki nga xam ne mi ngi ci màggal gi dëkk ci dëkk bi euh, ban yóbbal nga koy jox boo xam ne si mën na ko yóbbaale xam ne bu ci génnee bu amul te euh, yaqin ci 100 pour cent keneen moom màgg am na màggal validé parce que da ngay gis xale yi bu ñu jógee Touba dañuy bind màggal validé ci seen photo yi màggal validé màggal validé nag moom nit ki mënu koo xam suñu borom mooy xam gan màggal lañ validé wala déet waaye loo xam ne nit ki bu ko defee ab yóbbal boo xam ne boo ko joxee dana ko wóor ne wala dana ko jege kat wóor que ne moom mi màggalam validé ñu jërëjëf loolu mooy nga màggal. waaw loolu mooy nga màggal. ni ñuy màggale. te bañ a màggal si. ah d' accord. da màggal. Ah, te bañ a màggal si wala boog da ngay màggali. te bañ a ah. màggal si. accord màggal baat bi dafa wax dafa dafa leer. Ah, kon soo demee li si sëriñ waxoon dañ ko def ci sunna. d' accord da woon gàmm tanzim woo bi sunna. sunna daal néew ma sunna la. waaye lépp luñ ciy def dañ ko dëppale ak sunna. li ci mooy yéene. du tourisme. du ay fotowu. déedéet du ay sinap. du sañse. mais jaamu yàlla la. waaw ci lu bu baax. xool jëmm ji fi xëyee woon tey. lim dajal diine. lim sonnal lislaam. li mu yonent bi. li mu ci alxuraan. ba. yàlla yëkkati mu mel ni jant tiim ñëpp. nga teewlu loolu bu baax. Mm-hmm. te loolu lépp yow yaa taxaw mu daj ko. wallaahi ci lu wér. ndax sababu xaybatiya an laa araada an anaala minhu jaaha. Mm-hmm. wa an akun saafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi bëggoon fa. yàlla jox ko daraja joo xam ne. Mm-hmm. su ne ko tin mu tit ko. loolu boo ko teewloo bu baax. lim la ci digale nga def ko. ci jaamu yàlla yi. xam nga magasin ba pare di faat waxtu. <laughs> wax dëgg yàlla. loolu baaxul andul andul. gën fonk ci alxuraan. gën a fonk xasida teewlu bu baax sant yàlla teewlu bu baax. kooku li mu daj ngir diine. Mhm. li mu daj. ngir ah. yeesal diine. dëgg la yaakaar soo ko defee. Ah. mu teewlu loolu lépp. Ah. soo fi jugee yow. di nga gën a fonk diine. dana sàmm ndigalam dana moytu ay tere. mënumaa jóg te laajuma la laaj bi maanaam ci wàllu teewlu gi ak yéene gi tudd nga ko ndax dafa am ku mag moo doon waxtaanal ci ngoon mu ne euh, dafa am benn mag mu mas a toog ak Cheikhul Khadim nee na toogam yaag moo ko ne sëñ bi dama bëggoon a laaj maanaam suñu digganteeg ak saxaaba yi lan mooy suñu différence maanaam lu ñu wutaleeg saxaaba yi nee na sëriñ bi wax ko dara waaye da koo yónni ne ko demal jëlal ma nàngam ci néeg mu dem jëli ko ba ñëw mu ne ko bi ngay dem bi ngay dem loo ci fas mu ne ko dara mu ne ko looloo leen wutal ñoom lu ñu masaan def lu mu tut tut tut dañ ciy fas fas ci ngërëmal yàlla waaw day mel ne kon booy sóobu ci màggal gi yéene ji dafa am solo lool yéene mooy lépp a ah. innamal amal bi niyyat bi niyyat waaw ah. lépp mi ngi tënku ci yéene wallaahi kon mbokk mi mm-hmm. bul fàtte loolu mm-hmm. teewlul mm-hmm. yéene la xoolal liñ la jox muy diine. xoola kii lim ci daj. Mhm. ci taalif. wallaahi ci sampi daara. ci jàngale. Mhm. kon kaay santale ma yàlla mooy kaay joxal ma yàlla lim moom ci yow. waaw waaw ci lu <laughs> loolu nag yaakaar naa ne. buñ ko defee rek. buñ ci jógee. Mhm. ah danañu mën a gën a fonk suñuy diine. wallaahi gën koo mën a sàmm. gën a mën a mën a fonk lépp luy diine. bokk na ci fonk kilifa téem. yërëm ndaw ñi. la te weg wegante. dëgg la wegante gi mooy ku nekk da nga def sa bopp comme sa bopp. Mm-hmm. loolu Sëñ Tuubaa loolu mooy am njàngaleem ah weg mag jox ko worma wormaal barab yi. Ah. barab yi diini yi ñu worma ko. Ah, waaye nañ ko tàmbalee wormaal suñuy bopp. nañ wormaal suñuy bopp. Mm-hmm. wormaal suñuy kàddu. Mm-hmm. wormaal suñuy cër. wormaal suñuy colka. wormaal suñuy wax. dégg nga discipliné mooy am yar. dëgg suñu digg suñu borom mm-hmm. am ay teggin suñu digg suñu boroom am ko suñu digganteeg ki ñu yàlla booleel adduna ñu war a séq adduna mm-hmm. ci jàmm ak salaam loolu yëpp buñ ci teewloo dafa dugg ci cant gi parce que cant rek mooy xewal yi ma la defal mm-hmm. na ko delloo ci li taxama jox la ko loolu lépp kon yaakaar naa ne euh, wala yàlla yàlla nee na maa leen génnee min butuuni ummahaatikum xamu leen dara ah, waa wa jaalakum sama wa labsa wa laalakum taskuroon ba ah. defal leen ay jumtukaay hmm. nopp yeeg gis beeg xel meeg lépp leen rek taxoon objectif bi mooy ngeen ngeen sant kon nañu sant yàlla safaaru sant nag mooy weddi mooy yi la yàlla defal nga muur ko ah. bañ a am reconnaissance hmm. ah loolu hmm. nag nañ ci di bàyyi xel bu baax kon bu ñu fi jógee nañ gën a gën a fonk diine gën a jàngiwaat bu baax sëñ Tuubaa bind lu nekk ci diine lépp lu mat a leeral ah, ci xaaji diine yi leeral na ko mm-hmm. du tawhiid wéetal yàlla mm-hmm. yàlla ah, waxoon na ne sax sayfi llati yafri tura man sallasu tawhiduhu fa huwa al ilaahu al waahidu mm-hmm. majaas jëmay dogee dégg nga di boppi gaañi ci ah. waxin rek noonu dégg mooy taw wéetal yàlla ki nga xam ne moom laay wéetal yàlla ndax yàlla ci kenn loolu bu ñu ko defee jox yàlla moom kennal ko mm-hmm. dégg nga jox lépp ñu teg ko ci rëddinu yeen mm-hmm. jël sëriñ bi muy suñu kilifa doxale ko suñu diggante suñu borom mm-hmm. te di ko diglu ndax moom xam na fan la ñu jëlee xam na fan la ñu jëmee su ko defee tax ba xam la ne ne sëñ bi kenn du ko xamee ci mbedd kenn du ko xamee ci waxi mbedd nañ bàyyi loolu bu baax wax rek ci mbedd yi léeg-léeg da ngay diglu dara loo xam ne sax kii koy teg ban nu mu ko tegee sax da lay ah, jaaxal loolu lépp nañ ci bàyyi xel suñu mbidu ku ñu xamee ci mbedd nañ seeti ñi ko xam ñi mm-hmm. li mu jàngale mm-hmm. mu li mu jàngale weesu bu li fi yonent bi jàngale woon te mooy def loolu mooy mission mm-hmm. mooy ñëw yeesal diine yeesal sunu si yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la waxoon man talabal wasulu lil jalil falyantasim bi sunnati rasuli mhm. képp ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay ngooy ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. mhm. loolu mooy nga ànd ak koo xam ne du mooy yàlla mukk ci saahir ak ci baatin du jeng ci yoon wi bu ko fee mën laa wommat ci xam-xam dégg nga ak jaamu yàlla wommat la ci xam-xam ak jaamu yàlla su ko defee ngir jaamu yàlla loolu nag foofu la sëñ Tuubaa nekk mhm. foofu la waa njabootam gi nekk nee na woon nag wa man ala ilahi dallaka fa in xaalaftahu fa lil mari tatmain képp koo xam ne mhm. tegtal na la yàlla mhm. ba noppi nga dem def la la neex na nga xam ne yow ci saytaan saytaan ak ci nga ci nga bokk waaye bokkoo ci yàlla wa man ila xayri ilahi dallaka fa fir fa firra minhu fa fa innahu adallaka adallaka képp koo xam ne itam tegtal na te xam na daf lay sànq dëgg la te ku sànku safara moo lay génne kon sëriñ bi mbokk yi mm. nañ delloo si xel yi mm. gën a sant yàlla mm. tàmbalee ko ci tey ji ci guddi gi yéene bu baax teewlu bernde yi wane gi lislaam jàngale lislaam wane ay modèle wane ay exemple mm-hmm. wane ay ay bind yu tooy xëpp ci diine jikko yu rafet mhm. ba bu ñibbee ñun ñëpp ñu mën ko yóbbuloo ba déwén ak yàlla la ci lu wér ñi ngi koy santaat bu baax a baax imam Ahmed Touré yaakaar naa euh, viatique wala yóbbal boobu nga xam ne si moom la nu mujj a jox euh, di yóbbal boo xam ne bu am solo la xam ne képp koo xam ne si raxas nga sa bagaan ba mu set euh, jóge fa nga dëkk ñëw wala nga dëkk ci biir dëkk bi yaakaar naa danga mën a war a mën a taatan bu baax a baax a baax li nga xam ne moom mooy yiw yi nekk ci màggal gi ndax kenn di sonn di paas Euh, dégg nga di ñàkk sa alal euh, di di ñàkk sa doole ñu lay gaañ yooyu yëpp waaye Serigne Touba jaral la ko war nga nag booy ñëw nga xool li Serigne Touba bëgge woon ni ab taalibeem mel noonu nga fexe ba mel noonu rawatina booy dugg ci dëkk bii di Touba boo ñëwee ba biir Touba it nga wormaal dëkk bi ndax dafa am solo loolu wormaal dëkk bi te xam ne dëkk bii nga nekk bokkul ak beneen dëkk boo mën di jóge kon na ko bàyyi xel bu baax a baax ba lépp loo xam ne nee nañ la lii dañ koy bañ ci dëkk bi sooy ñëw nga bàyyi ko xel boo ñëwee bañ ko fee def rawatina suñu mbokk soxna yi loolu ñu bàyyi ci xel ci boppi neen yi ak ci yi nga xam ne si dañu koy sàggane kenn bëggu ko Touba boo delloo fa nga dëkk nag yaa xam euh, su la ko sam xel mayee bu la neexee nga def ko waaye nga xam ne loolu moom du njàngalem Serigne Touba du ko tey li nga xam ne si loolu la bëgg loolu la digal ak njabootam te képp ku sukk jébbalu ne aslamtu xamal na ci ak njabootam nga bokk nga bëgg wala nga bañ kon loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yàlla ñu suñu borom defal tawféex yàlla defal ñu màggal gii bu mu nekk mukk suñu màggal gu mujj yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwéni déwéni déwén te bu ci nekk ñu ànd ko ak suñu kilifa gi nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Mountakha na ko ñëpp ñaanal na ko ñëpp ñaanal ngir ak yàggam fi mooy suñu njariñ te sunu borom bàyyi ko fi waaye defal ko ak wér mu sax fi ak mbooleem njabootu Serigne tubaak gi yëpp taalib yëpp sax fi jafe-jafe yëpp suñu borom jaare ci màggal gi daqal na ko nu dundu naataange am atum naataange am nawet boo xam ne si nawet bu dal lay doon lépp bare lépp barkeel ñu leen di santaat bu baax a baax di leen ñaanal guddi jàmm gi nga xam ne si moo tàmbali màggal gi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu قلبي وقلبي بمن المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمن المصطفى yaa